imaam yi nga xam ni ñoo jiitee département bu pikin ti bëgg am lu ñu bëgg a muy seen bëgg-bëgg muy bëgg-bëgg boo xam ni yàgg nañu ko wut mu aju si ñaari mbir ba sa jiitu mooy loolu ñu tuddee armeel ndax fii ci Pikine département bu pikin dañoo gis ne armeel yëpp fees nañu suñu yóbbu néew ci ay armeel moo xam Pikine la moo xam yëmbal moo xam caaro yi moo fu mën doon dañuy suul nit ci kaw nit wala moo morcé nit ñu suul ko ci beneen foo laal ñu ni fees na foo laal ñu ni fees na loolu nag ñun ñi nga xam ne ñoo yóbbu néew yi ñoo ko xam muy jafe-jafe boo xam ni yàgg nañu ko revendiquer bindi nañ ci ay lettres yooni yoon di ko euh, yónnee ci président de république ak mboolem autorités yi nekk ci biir Pikine di leen wax ni imaam yi soxla nañu ay armeel kon président la république monsieur Macky Sall imaamu département bu Pikine ñoo ngi am siyen bëgg-bëgg boo xam ni bëgg bëgg askan wi la ndax armeel yi nga xam ni moom la ñu jagleel Pikine département bi armeel yëpp fees nañu comme armeel yëpp fees nañu nag ñu ngi lay ñaan nga daggal ñu armeel ci biir département Pikine ti bu mu génn département Pikine foo nu ko jox nag baax nañu loolu daal lañu lay la ñuy ñaan di ko ñaan président de la mu defal nu ko jaaree ko fi mu ko war a jaaree loolu mooy li nga xam ne moom la imaamu département bi ndax yàgg nañ koo ñaan tey nag lañ ñaan gi gën a tar ndax li ko waral mooy dëgg dëgg dëgg am nañu jafeñ-jafeñ ci suul néew yi nga xam ni ñooy ñëw ci armée li Pikine mbaa Thiaroye wala yëmbal wala ak fu mën a doon fépp a fees ba ci Kër Massar sa fees na ñun fu ñuy gis espace ñu ne place sàngam lañu gis place ndax dëkk bi yëpp président de la république moo ko yilif fépp fu fi président de la république gis ne man nañu faa may ñun d'accord nañ ci moom daal armée yi nu bëgg na nekk ci biir département bu Pikine bañ a gën département bu Pikine fu mu fi gis nag xam ni fii mën nañu faa may loo ramat fukki hectare wala boog sax lu ko ëpp lu ñu fa mën a def armeel ñeneen ñetti yeneen ak ah, ku si mën a bokk mais ñun bëgg nañu daal armeel yoo xam ni ci biir département bi fu ko fi mën a dagg nag baax na mais na nekk na nekk ci biir département bu Pikine nag te bañ ñoo sore loolu daal moo ñu gënal. waaw ñun fen tudd fenn comme mënuñoo tudd fenn mooy moom xam na fi lii ak fi lii barul li commencé Dalifort ba Kër Massar ba Mbao président xam na fi fan moo fi libre ak fan moo fi liibarul ndax ay kilifa moo nu gën a xam réew mi ñun ñoo ngi koy ñaan mu daggal ñu ay armel ndax it nag mënuñu bu ñu àndeek ñëw dikk fukki kan ñu gas ko gas mu ñu gas ñu ne suulal nit a ngi fi bu ñu gasee ñu ne suul dañuy mujj obligé nit ki ñu mujj indi def ko ci biir armeel boo xam ni borom a nga fa du orma du sutura rafetul kon nag talal nañ ko loxo di ko wax mu daggal ñu ay armeel ak bépp kilifa goo xam ne mën nañ cee jàppale ba ñu mën ko am noo kay koy ci tur département bi